nit ki dëkk fenn pendant lu mut ay 20 ans wala mu ëpp ko amagul feneen fu mu dëkk nga xëy xëy benn jour ñëw ne da koy génne far force mu nar a dem ci mbedd mi ak njabootam xamul fu mu jëm te ñu nekk ci période nawet aussi bon vraiment euh, jaay doole la. yi ñooy premier bâtiment yi ñu construire ñun ñoo fi occupé depuis 97 98 lan fi nekk yee yëpp suñu ginnaaw lañ ko tabaxee suñu leen ko fekkee fu ñu koy tabaxee. Ah, de façon ñun ñu fi nekk. musuñu gis ben expertise bu concret bu ñuy wax bu nga xam naan bâtiment yi dañ yàqu parce que loo xolé bâtiment bi du bâtiment bu ñuy toj ñom ñep kuñ ko ci may mu jël ko ñi naan dañ toj kuñ ko ci jox nga jël ko. bo waxé ne génn leen ñom franchement amuñu leneen luñu wara def lulul dul génn mais amuñu fuñu né té yoon deful limu wara def bu bu deful limu wara def moy jox leen fuñu dëkk ba pare jox leen seen xaaliss liñu ak mom

d'après les d'après les dires les affiches sont là d'après les dires que projet Bobou a échoué Nous ñun une raison pour tax mu échoué parce que le projet Bobou, après d'après Amical, nous nous lu nous a d'accord d'accord parce que nous avons jël durant durée construction mais actuellement là où on parle on parle de six mois de de location pour nous plus je sais pas 100 000 francs pour les frais de déménagement. Euh, de déménagement. Donc, ce qui veut dire que c'est 1 million. Quelqu'un qui a acheté sa maison à presque 22 millions, 25 millions, avec, ah ben, avec les retards de paiement, nga ñëw tey nga ne ko comme Il bi yu yàqu amul problème moi je parle pas de ça mais il yàquwul a nga war ko génne këram xam mën na si nga mu ji avec 6 mois et la suite waxoo ko dara lu leer loolu tamit day xaw a doy waar. je ma ci c'est a metti nag mooy sama sëriñ def fi dëkk nar a C'est ci ñuy génn te neexuma moy suma serigne suma xarit Cheikh Omar Mbacké. té d'après suñu responsable luñu jëlé ci monsieur le ministre euh, de l'intérieur que tey jii la waroon wax à Sénélec ak waa SDE pour ñu couper courant bi et que ñun bu féké loolu moom mu ngi koy def dañuy wax né mi ngi wàcc yoon parce que ñun ñi waxuma ñu yàqu ñun ñi dëkk fi am contrat ak ki té jaaru ñu ci par l'État on a des euh, contrats euh, contrat avec la Sénélec et la SDE. Ah, avec des contrats privés comme moi, il faut a waxoon la pour nous couper comme ça nous ñu am ndox courant pour nous inciter à sortir donc je me dis que vraiment on est un peu délaissé quoi